thank you Merci de nous rejoindre sur Warha TV. Bienvenue dans votre émission La vie et la vie des jeunes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Diaye Nemarisou, ancienne euh, parlementaire et membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Madame Diaye, euh, bonjour. Bonjour Madjiguen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir partagé. Je vous laisse vous présenter plus amplement. Voilà, je, je, je, suis Mariso Ndiaye à l'état civil je suis une ancienne parlementaire, ancienne présidente de la Commission féminine nationale des Jutel du Parti démocratique sénégalais, Safran Jeune. Et je suis membre de la cellule de communication du Parti démocratique sénégalais et membre de, la Fédération des cadres aussi. En même temps, dans l'ancien bureau de la Fédération de Pikin Daoudan, je suis la secrétaire générale chargée des femmes un très riche parcours, j'avoue. J'ai aussi le plaisir de recevoir M. Alim Badrafal, économiste, spécialiste en statistiques et conseiller municipal, président de la commission jeunesse de Pékin Nord. M. Fall, bonjour. Oui, bonjour Modigen et merci beaucoup euh, pour l'invitation. Nous sommes lay euh, santé bu monsieur Fall di la euh, est-ce que mën nga décliner les casquettes en termes de politique euh, oui, merci beaucoup. Et tout d'abord, permettez-moi de saluer ma sœur euh, Marissa Ndiaye, qui est une sœur, bon, comme si yag nañ, et bon, comme si vraiment, comme jox cër la, comme si comme fonk comme naw la, et ku pikinois aussi wara sargal parce que elle nous a très bien représenté au niveau de l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que euh, falom ñun am pikin amuñu ci long comme si luñ ci luñ ci mer la. Li ñuy nakarlu kay moy lim delluwatul assemblée mais peut-être euh, l'avenir est devant nous et le meilleur reste à venir. Donc euh, merci beaucoup et je suis très heureux de partager ce plateau avec elle. Donc Alim Badra Fall, président, euh, coordinateur départemental du parti Ande Ligue de la présidente Aïda Mbodj. Donc euh, conseil municipal au niveau de la commune de Pikine Nord et président de la commission jeunesse. En même temps aussi, je suis président du conseil communal de la jeunesse de Pikine Nord et je suis aussi membre du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse. Merci beaucoup. Un riche parcours aussi. Avis, la vie et la vie euh, des jeunes tamit euh, jotaay la waxtaan la ngir weccoo xalat ci li nga xamantene na ñi nga xam ñoo di jigéen ñi waye soxal na itam ñi nga xam ñoo di ndaw ñi tay ñi waxtaanee li nga xamantene modi engagement politique jeuni ak jigéen ñi. Euh, lan moo tax euh, jeunes yi tey engager euh, engagé wu bu baax wala suñu engagé woo naka la def pour jappalé lañ ci sen engagement bobu non bañ mëna jël ay décision bok ci instance yi nga xamantene vraiment lepp luñuy def ci Sénégal dinañ leen ci laaj sen xalaat donc lool mo waral tay débat bi tay monsieur Fall lan moo tax jeunes yi engagé wu ci politique de même que jigen ñi. waaw je pense que question bobu c'est une question très très très importante lan moo tax jeunes yi wara a engagé ci politique lan moo tax jigéen ñi war engagé wu ci politique parce que nak euh, man sama conception moy que ni dans la vie il y a deux sortes euh, de personnes moy les acteurs ak aussi les spectateurs soit da ngay nek acteur bokk ci ñi décider bokk ci ñuy jouer film bi wala nga nek spectateur bokk ci ñi nga xam si yow yaay subir les décisions nga nek jeune wala nga vous êtes da nga wara engagé pour participer aux instances de décision tant que ya ngi participer ci de décision yi lo nga xam ci sa bëgg-bëgg la wala sa gëm la faire valoir pour que tay ëllëg nga participer au développement la communauté participer aussi au développement euh, par rapport à tes pères jeunes wala femmes donc je pense que les jeune wala bépp jigen dafa war ci yow nga engagé ne serait-ce que pour servir et non pas pour servir mais pour servir servir nag dafa am plusieurs façons parce que mënoo toog sa ruq rek lu ñu def nga critiquer lu ñu wax nga critiquer alors que yow waroon nga mën a toog di jël ay décision ñu koy critiquer ñaari posture la soit da ngay bokk ci ñuy critiquer wala nga bokk ci ñi ñuy critiquer donc engagé wu nag da ngay bokk ci ñi ñuy critiquer mais na nekk critique yoo nga xam si ëllëg yow ñu nga ko mën a justifier par rapport ak yow sa engagement ak par rapport ak décision yi nga xam si yow yaa koy jël donc je pense que la jeunesse sénégalaise commencé nañ ci les femmes aussi yakarna ñom ñoo nek en avance parce que am nañ ce qu'on appelle la parité mais la jeunesse dafa xaw tout am tuuti lu ci parce que la représentativité des jeunes au niveau des instances de décision dafa xaw soxé Si ñëwé est suñu conseil municipal au niveau de Pikine Nord par exemple xawna a tane parce que quelques jeunes mais Marissa Sow Ndiaye mi assemblée qui ko gëna maîtrisée. maîtriser à l'assemblée nationale 10% des jeunes jeunesse yakarna nekul bir assemblée nationale donc peut-être mom après na ci parce que il faut que nous am ces statistiques là pour mëna def le plaidoyer pour une représentativité des jeunes au niveau des décisions. de décision ba yu pour que 30 des jeunes soient représentés au niveau des assemblées électives L'Assemblée assemblée nationale le euh, conseil économique et social le conseil des collectivités territoriales au niveau des collectivités territoriales même pour que jeunesse justement dinañ dinañ dinañ revenir ci lolu mais engagement bi fay am tay fo xamantene dañ nan fofu lay commencer hmm. manam tay en tant que jeune bi nga xamantene ne mu ngi jang école wala mu ngi ci quartier bi di jang métier koku tay euh, nan lañ ko meuna motiver à ce que mom mu engager wu dans la vie sociale parce que politique tamit du politique euh, bo xamantene da ngay bok ci gouvernement bi rek parce que ki nga xamantene ne mu ngi liggéey pour koñam mu ngi liggéey pour les associations koku tamit mu ngi engager wu de manière politique non c'est ce que je dis engagement bi warul nek rek warul nek rek ci côté politique parce que engagement bépp côté boo nekk rek war nga fa mën a mën a engagé même ñi nga xam si ñu ngi nekk ci daayira yi di ci yëngatu sax engagement la engagement bi na amul utilité rek sa gox engagement bi ci association de quartier yi lay doore ñun ñi ñëpp ci association de quartier yi lañ doore rampe association de quartier yi ngay doore affaire bi nekk benn virus bu lay dugg nekk benn passion ba nga xam si day nekk ci yow ba nga xam te tey ëllëg di nga gis ni yow mii kat war nga mën a participer pour vraiment faire valoir tes idées pour que tay sa gox mën jëm ci kanam parce que loolu ñun moo tax ñu gëna gëna nekk ci engagement parce que da ngay nekk ci association de quartier di gis ni mi démé nga gis que ni ñi nekk ci kaw kët di jité jëluñu en compte préoccupation gox nga ni yow pourquoi pas ñom fa ñu nekk yow nga war fa mëna nekk pour tay aider sa gox pour mu yegg fa mu bëgg yegg parce que comme Pikine bi ñu dëkk ni bobu légui ñi ngi kaas ci affaire yu bari ni mënuñu ko am c'est parce que fa ñuy dogalee en général les Pikinois duñ fa teew wala buñ fa teewee aussi du am les positions stratégiques pour xëcc pour indi Pikine en tant que jeune di nga au niveau des associations de quartier d'abord fa ngay démarrer au plus bas niveau même par exemple dans nos organisations respectives dañuy def des camps de vacances pour les jeunes xamal leen instruire ci ñoom les symboles de la république pour ñu xam lan mooy la république pour que ëllëg bu ñu màggee dinañ màggaalee pas-pas boobu noonu ak engagement boobu noonu seen biir xool ba nga xam si. lépp loo xam si dina jëmale ci engagement wu seen gox dinañ ci mën a dinañ ci mën a participer donc engagement bi du rek politique mais engagement bi dafa war ci côté yëpp c'est pour participer et participer nag participer positivement pour le développement du pays participer positivement pour euh, le développement du pays vous l'avez mhm. dit euh, madame Diaye, justement euh, gouvernance ou parti il faut ci vous choses à maintenir première étape bi nga xamante jeunes pour les prises de décision au sein de votre parti si est-ce que vous avez jeunes postuler élections est-ce que dinañ postuler en masse est-ce que dinañu ci est-ce que vous merci beaucoup ma Je vais may répondre à ces questions. Je vais rendre hommage à un jeune valeureux que vous avez sur le plateau aujourd'hui et je veux parler de Badarafal. Badara parce que nous avons cinq ans assemblée mais Dieu m'est témoin à chaque fois qu'on devait parler des questions de jeunesse mon mi laay nous travaillons ensemble d'ailleurs coach <laughs> parce que c'est vrai je suis la grande sœur mais aujourd'hui c'est le petit frère qui coach la grande sœur ah, et c'est aspect yu bari jeunesse mais comme je sais que c'est ce lay je fais, aussi borom mhm. et je pense que modèle d'engagement modèle d'engagement à deux niveaux modèle d'engagement dans la politique de développement parce que nous sommes liés, mais nous ngi créer emplois mais modèle d'engagement aussi si on que ni jigéen rek dafa wara jeex bir Sénégal et je veux parler de notre sœur Warkha Fatou Warkha Sam donc pour revenir sur cette question aussi euh, engagement des femmes dans les partis politiques ak mode d'élection yi est-ce que ñu ngi postuler wala duñu postuler nga joxe sama exemple parti ma def ben historique bu ndaw rek le parti démocratique sénégalais bi mu commencé participer à ay élections parce que xalé lañu mais amna luñu jotta ñu amna lo xamné am netali nañ ñuko ci bir parti démocratique sénégalais et fekkoon a fait qu'on a un mentor boo xamante ni dafa gëm ni jigéen mooy doxal lépp maître je veux parler de maître Abdoulaye Wade pour moom jigéen lu mu jiitewul du dem pour moom et pour pour exemple bi mu faloo premier ministre mu femme la ko def parce que gëm na que ni valeur bi jigéen dina ko def un xoolal tey jii jigéen rarement ngay dégg ni la jigéen war na rarement nga koy dégg donc am na loo xamante ni buñ ko cultiver si nit ki dina dem. mais nous avons aussi une dañu am ay crise de valeur ñu wara déllu waat ci société yi wara waxtaan ak nit ñi bala ñuy egg ci parti bi parce que man dama ne première partie bi biir kër gi la nan lay def sama kër et nous tout le temps ma toog di xaar man kër gi ma mais en tant que jeune qu'est-ce que je dois faire pour ma pour ma maison qu'est-ce que je dois faire pour ma localité mais qu'est-ce que je dois faire pour ma nation parce que nag on dit tout le temps que la jeunesse c'est l'avenir d'un pays. Mm-hmm. un l'avenir d'une nation nag defe naa doo toog croiser les bras quand tu croises les bras à chaque fois de ne subir nous décider à ta place nous jox là et le plus souvent on a l'habitude de dire que quand tu fais pas la politique tu l'as subi mm-hmm. est-ce que tu as dit géopolitique mondiale bizarre sax li que ni jeunes devant est-ce que c'est le Sénégal n'est pas en retard je rejoins mon frère à Badara Fall si mm-hmm. on est très en retard quand la France a se permet d'avoir un président jeune même si c'est pas il n'est pas dans la charte parce que boo les France c'est une jeunesse 24 ans lañ ko mhm. mais bataille nous ñun li jeune que ni le président de la France est un jeune quand tu vas à truc que nous de Kigali ils ont un ministre qui a 19 ans un ministre qui a 19 ans nga dem si yenen deuk exemple barina Aujourd'hui, il y a que met Abdoulaye Wade mo fi nekkone di un jeune de moins de 25 ans def ko ministre ministre amoon na dans son gouvernement lolou lepp dafa nekkoon signe yo xamanteni ni na motiver ndaw ñu ñu dem mais dafa melk que ni tay problème bi d'autres problèmes ou d'autres problèmes mu jeunes engagé wu nañ jeunes yi mm-hmm. ñëpp engagé association de quartier association association de quartier association de de de de de de commune mm-hmm. association de de département ñu ngi mais fanny ñuy ak fa ñuy mom lañ mëna gul am accès té liko indi moy que du ma ne alternance générationnelle parce que man dama bokkuma si ñu nan alternance générationnelle dafa wara am à coup dafa wara am impérativement. Mhm. mais nak war nañ mëna tam changer classe politique bi ba nga xamné dinañ permettre ndaw ñoo ñu dem. Mhm. bu ñuy permettre ndaw ñoo ñu dem aussi euh, la parité est là pour les femmes man sumay wax euh, xamna dina ma ci mere touti sax mais damay tam bëgg di waxal jeune jeune fille mhm. c'est important jeune fille lay gëna a bëgg di waxal parce que bo xolé tay euh, sphère politique bi ñoom la ñuy léser sauf dans mon parti. Mon parti ñëpp xam nañ que ni ba mu commencé participer aux élections législatives ba numéro numéro deux listam jeune fille lay nek à part cette année bien sûr donc koku gëm na que ni ndaw bi war nañ ko mëna a coacher mu dem parce que kiy nek xalé tay mom moy nek mën a nekk mag ëllëg te boo ko defaree tey defe bu suba dina la doxal li nga bëgg dina def di nga def li nga bëgg donc jeune fille yi dañu am dañu am ay handicap parce que dinañ nek ci kër gi Tant bi ñu war a dem réunion pour engager dans la politique de développement de leur localité le plus souvent dañ naan la demal toggi añ wala quand il y a manifestation mon frère nekk ci kër gi man ma nekk ci kër gi bu amee ku ñuy man la ñuy tere parce que dañ naan dama néew doole dañ may tere ma toog donte de plus en plus maintenant jeunes yi ñu ngi imposer aussi sphère politique bi ñu ngi def le tout pour mën a bokk sphère de décision mais jàppale bi ñu li ñu leen war a jàppale moom la ñu et dans les partis aussi dafa am problème bu ci tout le temps dañuy bëgg mag bi jiitu xale bi top ci est-ce que loolu c'est pas euh, quelque chose bo xam ça en rapport avec euh, l'aspect social tay si suñu culture amana kilifa sax duñ ko jël mo bobu duñ ko jël diko tek ci euh, jigéen te pourtant jigen mën na nek mën na est-ce que du éducation côté bobu moy entrer en moy moy mooy li ma la wax sank si sama njëlbéenu wax bi may débuter nee naa la jigen rek moñu sonal dañ naan rek alors qu'aujourd'hui boo defee àdduna bi yëpp nga def dëkk par dëkk di nga xool que ni jigéen ñaa ngi occuper les plus hautes sphères de décision mais pourquoi Sénégal campé wu foofu on a un problème avec la tradition jigéen fii la war a yem jigéen tànkam dafay gàtt jigéen làmminam dafay gàtt alors que jigéen boobu noonu moom mooy puso bi tey moom mooy nas boo xoolee société wu développé yëpp dañuy jox nopp jigéen bi mu développé mais dañuy déglu seeni ndaw te bañ di wax ak ñoom aussi ndaw nak boko bo waxe ak mom mu def li ka neex parce que dégluwuloo wuloko bala ngay wax fajal nit ki jafé jafeem dang koy déglu d'abord xam lan mo metti si mom nga doog meuna mën fajal aujourd'hui jeune yi ñu ngi constituer wu en association en ONG pour am comme li parité am c'est-à-dire les 30 pour li ñu mhm. am ci dans les instances électives et semi-électives mais lan moko bloquer c'est une loi qui est c'est un projet de loi bo xamante ni defar nañ ko bu yàgg. Mhm. mais bloqué na lan motax est-ce que du suñu mag dañu bëgg tok rek ne duñu pousse est-ce que ndaw yi ñu waroon organiser woo organiser wu est-ce que aussi amuñu un problème de communication avec nos anciens nos adultes nos anciens ba tax ñom ñu heurter len fenn ba tax ñu wara bloqué donc tout est tout est matière de communication mais bu ci communication c'est dañu amaat benen problème bo xamante daf ñu top ñun ñëpp muy problème tradition rak day top mak mak top yaay yaay déglu papa donc système boobu moo ñu moo ñu moo ñu bloqué tey ñun jigéen ñi mais je pense que de plus en plus ñu ngi gis que ni jigéen ñaa ngi émerger jigéen ñaa ngi dem donte du question dañuy wuti liberté totale mais ñu ngi mm-hmm. jéem a génnal seen bopp frayal seen bopp chemin ba nga xamante ni nañ am la ñu bëgg li ñu dese kay mooy un parti de jeunes filles wala un parti de jeunes un parti piloté par une jeune fille mm-hmm. un parti piloté par un jeune de moins de 25 ans au moins kooku dina mën a wàcc wax ak ndaw bi nga xam amagul trente ans parce que beaucoup de génération. ils se comprennent ñoo bokk li ñuy dund. terme nous ñuy utiliser man qui terme yo Nous ni des termes qui anti ci antichambre bi terme un jeune de 25 ans beaucoup ko nous nous décrypter da ngay dans les réseaux sociaux il te met des mots pour ma comprendre des fois il faut que j'appelle mon fils pour comprendre. Mm-hmm. donc mën nañ wax que ni fofu dina am benn choc choc de génération buy am déphasage day am fofu mais déphasage boobu ñun ñoo koy cultiver ba nga xamante ni dañ mën a loxo pour atteindre suñu objectif c'est-à-dire avoir une forte représentation des jeunes mais ça va commencer dans les partis politiques et je pense que le PDS était un très bon exemple sur ça malheureusement dañuy gis que ni adduna bi mu ngi évoluer nit ñi di gën a bëgg di camper seen position mais toujours est-il que les jeunes n'ont pas le droit de baisser les bras les jeunes ont le droit de se battre les jeunes ont le droit d'être présents fa ñuy décider ndax nag kuy décider fu ma nekkul defe naa la ngay décider boo nee ma pour man la dama nan la pour man mais sa bop ngay décider. effectivement effectivement parce que euh, on voit que euh, déphasage day am diganté ñaari génération ñi jël décision ak ñi ñi jëlal décision toujours dañuy am ay ben fossé bo xamante ne day seen mm-hmm. diganté c'est soit comme tu vous l'avez bien dit duñu comprendre ante soit que la muy jël yaakaar ne moo ci jeune bi du fekk né mom moy euh, li gën ci mom ba monsieur Fall dañuy ñëwaat ci lolu par rapport ak une organisation yi nga xamante ni a ngi ko yor diko diko doxal comment vous faites pour aider les jeunes et les jeunes familles yi nga xamante ngi engagé à vos côtés pour gën leen jox tamit ay forces euh, intellectuelles yo xam ne dina leen permettre tey instance yi ñuy wax diko réclamer buñ fa éggé tamit ñu mëna xam naka nañuy euh, taxawé ak yeen décision nañu wara jël exactement comment procéder. waaw je pense que lolu c'est c'est c'est important et que au niveau de nos organisations comme par exemple le conseil de la jeunesse dañuy travailler ci lolu dañuy travailler ci lolu pour euh, euh, vraiment aider la jeunesse à ce que ñu développer leurs compétences. C'est-à-dire qu'on organise par exemple des séances de formation en développement personnel et en leadership pour que jeune bi mën a vraiment bu bëggee yegg fenn il faut que ait des aptitude aptitudes qui xam da développer donc il faut que nga des aptitude aptitudes communicationnelles qui xam développer am la tenue et la retenue aussi yooyu yëpp dañ koy jàngal jeunesse bi pour que tay bépp autorité bu mu mën di togal du am complexe togal ak autorité boobu noonu parce que yooyu yëpp da nga koy jàng aussi cultiver ko di ko doxee di ko waxee pour que tay ëlëk bo yégué fenn fi nga mëna xam noy doxalé je pense que ñun ñi yëpp muy Marie Sow muy Warxa muy man ñun ñëpp ci école bobu lañu génne maintenant nak malheureusement organisation bobu ni mu waron doxé au niveau national la doxé wul mo xawa am soxé moo tax jeunesse bi aussi euh, euh, euh xawa vraiment manqué au rendez-vous par exemple Marie mi ngi koy wax bobu légui 30 euh, de représentativité des jeunes au niveau des essences électives et semi électives loi bob ko mais boobu ba mënul dem parce que lan est-ce que nous nous réellement des organisations fortes de jeunesse nous ko forter yor communication pour aider cette jeunesse là ñu mën a am que bëgg parce que suñu problème si nous suñu instance jeunesse yi jeunesse nga déjà bien ngi nekk ay côté trente trente ans pendant 5 ans yi n'est nekk di ngeen porter benn projet mais projet bi ngeen ci xeex ba cinq ans yooyu noonu après yow ñun la amatoo âge jeunesse da ngay génn léegi ñeneen ñooy ñëw ci ginnaaw du ñu expérience bi pour continuer ce combat là loolu ce ñu sonal la parce que ñun aussi dañu war a am suñu ay propre définition ak conception wu jeunesse ni ko tubaab yi amee ak ñun ni ñu ko amee warul mën bokk effectivement parce qu'on n'a pas les mêmes réalités parce qu'on n'a pas les mêmes réalités donc le temps que ngay xeex ci projet 3 ans 5 ans à nga nous par exemple ñun structure bi ñu nekk waroon nañ ko renouveler depuis cinq ans ngi ni mënuñu ko renouveler président bi am na quarante cinq ans te ki war a nekk président conseil de la jeunesse moins de trente cinq ans ngay am moins de trente cinq ans nag boo ko amee yu bari fii Sénégal yu bari doo ko mën a doxal sa bopp. donc nag moo tax yu projet yu bari par exemple projet bii de la bii bi ma lay wax nii ñu ko porté ñu ci bari instant bi dépassé nañ tranche boobu noonu. donc pour que loolu dem day xaw jafé motax ñun aussi suñu politique de jeunesse au Sénégal dañ ko wara a togat toogaat xalaataat ci xol yeen orientation lañ koy jox ak aussi ban définition lañuy ñuy jeunesse ak ban carcan lañ koy tek pour que tay mu mëna épanouir par rapport ak li bëgg motax formation bi à la base ñu ngi ci mais luñ la former former former former bo waree wacc ci terrain bi le temps que ngay comprendre les mécanismes comprendre les concepts après wessu nga 35 ans. Euh, justement par rapport à ça mhm. euh, formation j'ai l'impression que comme li à partir de 30 ans le avons des di euh, politique donc 30 ans techniquement c'est jeune mais est-ce que nan lañ des pour un plus jeune que ça comme ça le relais sera facilement porté si vous avez des plus jeunes je pense que les organisations de jeunes par exemple nous sommes mais parti parti par exemple nous man sommes na dañu ce qu'on appelle les le pépinière des cadres libéraux amoon aussi au niveau des écoles euh, le mouvement des élèves étudiants yooyu yep ay structure la yo xam si dañuy former pour que tay ñooñu mëna magalé ak le libéralisme ci ñoom mais légui yoyu en général gisatuñ ko école yi amatuñ ay régal parti yi amatuñ ay école de ay école de parti donc lolu aussi parti war nañ ci liggéey même les organisations de jeunesse war nañ ci liggéey tay jeune dina nekk ci parti dem ba am responsabilité bu mag nga laaj ko lan mooy sa idéologie parti du ko xam parce que amatuñ des écoles des écoles de parti tey ay mari yi ay formatrices lañ ci loolu noonu donc ñoom jàng nañ ko xam nañ carcan yi xam nañ lépp ci libéralisme loolu ci laaj ñu wax la mais am na ñu bees ñu ñëw ñoo xam te dañuy jógee fa rek ñëw wàcc am benn Ablaye Ndiaye bu leen jàppale ñu nekk ci kaw parti bi mais après boo leen laajee ci parti bi wala euh, idéologie wu parti bi lan mooy libéralisme mm-hmm. duñ la ko wax mm-hmm. tey libéraux yi ak ak yi ñoo jaxasoo ken xamatul idéologie et loolu je pense que ni am na lu muy wàññi aussi ci engagement jeunesse bi am na lu muy wàññi aussi par rapport ak doxalinu dëkk bi. tey bu libéraux yi yoree dëkk bi dañ ko war a sentir ni libéraux yi ñoo yor dëkk bi parce que politique libérale la ñuy doxal bu socialiste yoree dëkk bi aussi dañ ko war a sentir mais léegi kenn mënatu la kenn mënatu la gis concept yooyu alors que c'est très important pour que jeune bi par exemple balaa muy dugg ci politique mu xam ni man mii kat. idéologie je suis un libéral ci libéraux yi laa war a dem engagé wu ji. man mi kët je suis un socialiste ci socialiste la war dem engager mais tay da ngay gis ben mari dekk so kon di def politique rek nga ni man mari momo neex mom lay andal donc idéologie day dé donc jeunesse bi aussi sen engagement dotul amati base légale buñ ko tek motax aussi euh, dérive yu bari bokay gis aussi lolu mo koy waral parce que politiquement amuñu ben formation bi boo leen indilee débat dé débat d'idée mënatul a nekk tay facebook bo xolé amatul débat di dé débat bo mën di poser li lay tontu mu ñu la tontoo benn yoon ñaari yoon amatuñu argument saaga yi commencé mhm. te loolu ñun sax dama suñu génération dañu am sens parce que débat yooyu noonu moom moo waroon di doxal politique bu njëkk bay agora lañ doon def maintenant loolu Facebook WhatsApp yooyu yëpp am nañ opportunité boobu noonu mais mënuñu ko saisir parce que amuñu formation bi suñu amoon formation bi nag day yomb pour ñu saisir ko ay débat yu intéressant ñooy am ci Facebook bi ay débat idéologique tey par exemple ma xool sama benn xarit bu nekk PS par exemple un jeune Bassirou Samb responsable des jeunes PS ma teg benn débat sur libéralisme mu indil moo des contre argument ci ci ci le socialisme loolu moo doon dundal dundal affaire yi nga xam si idées yi day génn mais malheureusement formation boobu mënatuloo nekk parce que suñu parti yi la affaire yi affaire yi et c'est vraiment euh, dommage parce que les jeunes ont besoin de ça. Euh, def dara timit xam ko daf ci et comme vous l'avez dit dans d'autres pays soit vous êtes de la gauche ou de la droite extrême gauche ou extrême droite et ça ça permet même à qui nga xamantene mom voter pour yow. pour mu mm-hmm. xam ban concept lay euh, voter réellement et c'est vraiment important. Donc, euh, Madame Diaye, vous avez été euh, députée très jeune et euh, vous êtes une, femme. Est-ce que vous avez été victime des stéréotypes donc, parce que vous êtes une femme ou parce que vous étiez jeune Est-ce qu'on vous a une fois, est-ce que vous avez une fois senti que vous ne pouviez pas une décision parce qu'on dit que qui est jeune là ou qui est là euh, merci Madjigen, mais voilà, c'est juste mm-hmm. pour euh, mon frère. Mm-hmm. C'est vrai, on a des problèmes par rapport à la jeunesse et moi personnellement j'ai participé au dernier dialogue national. Mhm. et le point qu'il faut débattre ça concernait la redéfinition de la jeunesse ak encadrement au âge et je pense qu'on a mis une recommandation phare par rapport à ça. Mhm. c'est-à-dire ben problème on a ratifié la charte africaine de la jeunesse. mais ce qu'on a ratifié ratifié c'est un problème diplomatique on mhm. peut régler ça vite fait. Nous nous bëgg revoir âge de la jeunesse dès ko 35 ans y 40 ans déjà. parce que c'est une réalité moi, mel non euh, Nous, à part âge de la jeunesse bi mm-hmm. aussi nan def ba nga mm-hmm. et pour les partis politiques aussi il y a des partis qui xamante man personnellement euh, euh, j'aime pas trop donner cet exemple là mm-hmm. mais j'ai intégré le parti démocratique sénégalais alors que j'avais 14 ans donc j'ai commencé en tant que Benjamin Benjamin laa duggee parti et moi, il sait de quoi je parle en tant que Benjamin j'ai eu mon premier diplôme en libéralisme bi may 16 ans parce que man dama en fait c'est mon père qui avait cultivé ça en moi ngay def dara day nga xam ka effectivement et il avait l'habitude de me dire Marie apprends, apprends à connaître ce que tu veux défendre demain. Mm-hmm. Et au moment de t'engager réellement, ce ne sera pas à toi de te déplacer, mais c'est la politique qui va se déplacer et va venir te trouver chez toi. Malheureusement, je n'ai pas suivi la question, je suis allé vers la politique. Hein. Mm-hmm. Mais n'empêche, topona naa li ma waxoon moy que ni bima ma ma intégrer l'institut libéral en tant que Benjamin. Mm-hmm j'avais pas l'âge mais au moins j'avais des grands frères yo xamante ni tey ñu ngi fi. Mhm. dañ ma doon yobale dans les réunions donc xam dina xam réunions yi nu muy démé dañ ma daan yobale bu ñu une session de formation donc don na xam et ils m'ont donné cet amour là. Mhm. j'avais des grandes sœurs ñu ngi fi c'est département de Pikine. Nous m'ont accompagné accompagné si on te ma des fois donne nañ ma des uniquement pour me dire parce que j'avais pas droit à la parole mhm. mais je nañ ma bàyyi ma dem vivre lol l'eau ma permettre d'intégrer pas mal de formations surtout les formations allemandes en matière de libéralisme et là mhm. je salue remercie la Fondation Frédéric Neumann en cela. Parce que dernièrement, en 2000, 2020, 2020 j'ai mhm. eu un autre diplôme là-bas de l'Académie libérale. Donc, nous top Et dans les partis libéraux, ils avaient l'habitude d'avoir des instituts dans le, dans, au sein même de leur permanence. Mhm. de pouvoir opposition moyen mais n'empêche on essaie de faire lu ñu nous les jeunes l'institut des fois on dajale len dina jafé parce que xalé yi instant bi dañu bëgg bi donc dajale len xaw mais toujours est-il que il faut que nous continuer de tàllalante loxo comme dans le département de Pikine s'il y a des jeunes qui ont besoin de formation en leadership en leadership transformationnel en développement personnel confiance en soi nous on est là pour ça parce qu'on a aujourd'hui une mission de redevabilité envers cette mm-hmm, envers cette mm-hmm, jeunesse mm-hmm, tay lu ñu mënti doon ci aduna si jeunesse lañ ko jëlé kilanam li li Benjamin la commencé ñëw mouvement élève étudiant, ba ñeu intégré l'UJTL ba dem que si député aujourd'hui nous, muy au comité directeur de ce parti am na benn euh, mission de redevabilité envers envers ce parti là donc man posture boobu laay taxawee et moom ñii si si jeunes yi ma ko doon yombal la bokk mm. doonuñu woon wax jigéen laa rek mm-hmm. pour ñëw si sa question si stéréotype yi Dieu que ni moom xam mm-hmm. je suis très calme de nature mm-hmm. mais rebelle de l'intérieur donc jigéen la rek moom ku ma ko ma sax doo ko doon dëgg fa neex yàlla jigéen la rek non rek bi bu ñëwee rek énervé nga parce que dama naan goor bi bu jaree 1000 francs damay jar 1500 baa ma jar 1000 francs ni moom et ku xam école set bi ku fa dem samay archive nga fa tege bu góor jëlee pay bi yoon du mu ñu génne damay xeex mu ne ko lu tax nga jël pay maa war a <laughs> donc man noonu lañ may yare en fait sama papa dafa yéex am doom bu góor man may taaw donc il me disait que bul jàpp sa bopp que ni jigéen nga mais bul def sa bopp góor forcel tu te forges ta personnalité mais personnalité bul nangu am benn complexe si le fait que nga nekk jigéen lu ji góor di def mën nga ko def lu góor di jar man nga ko jar donc buñu amé culture aujourd'hui wax di wax ak cette jeunesse féminine là surtout ci aspect bobu defe na dina indi yenn stéréotypes dinañ ñoom dinañ ko mën dinañ ko mën pousse ba nga xamanteni dinañ dem dinañ dem vers de l'avant et loolu li ñuy permettre ñu dindi ko mooy ñun ñun ñi nga xamanteni ne ñoo mag aujourd'hui ñi nekk ci suuf il faut ñu mën leen tendre la main mais ñom tamit il faut ñu nangu déglu il faut ñu nangu deglu et il faut nous nangu loxo bobu ñu leen talal ba nga xamanteni dinañ lever yenn équivoque dinañ leen permettre aussi dinañ leen capacité dinañ leen capacité ba nga xamante ni bu ñu am complexe jigen rek la parce que man dama gëm que ni aujourd'hui lu fi baax jigen koy baaxal donc man lool la gëm te lool la leen di donc jarul ñuy tok ne jigen rek la quant à sama passage à l'Assemblée nationale je peux pas dire que je l'ai vécu j'ai vécu ça en tant que femme non mais peut-être que je l'ai vécu en tant que jeune mm-hmm. dañu tollu won benn moment nous avons ay postes dans le parlement africain mhm. ils ont dit non Marie là. la on m'a laissé là mhm. ben oui on m'a laissé là malheureusement quand le vieux l'a su le président Abdoulaye Wade a dit non mais Khalé bi moo là. soxla xale bi là soxla dem mais Khalé bi na mu ko défendre est-ce que Mac bi fay défendre mais est-ce que Mac bi aussi un bagage intellectuel pour mhm. permettre de représenter tout un parlement et là il parlait pas de parti pour montrer que ni boo xasee ba dugg assemblée amatoo parti. bien vrai que parti tu représentes le peuple bien vrai que parti bi moo lay pour nga représenter ji ko à l'Assemblée, mais si xasee ba egg sa mbubbu parti da nga koy bàyyi si biti. donc peut-être loolu rek laa fa vivre loo xamante ni dañ naan jigéen jigéen xale la mais doonuñu woon wax jigéen la et bi may dugg assemblée je n'étais pas si jeune que ça parce que j'avais 30 ans presque. Mm-hmm. j'avais 30 ans presque muy dugg assemblée donc doonu ma woon xale boobu non donc amna na jaar-jaar politique buma aw mais doonuma woon xalé boobu donc j'étais assez bien préparée pour me me me contrecarrer yenn yi meuna wax ak ku nekk aujourd'hui amul koy tégal ma seug ci kanamam dama lay mm-hmm. rouss nak cieur nak mom ñoko ko parce que non lañ ñu moñalé ñun xalé mm-hmm. ñun sénégalais mais surtout ñun jigen dañ ñu moñalé ak joxe cieur bobu mais cieur mm-hmm. bobu warul nek ben frein warul nek ben handicap pour nga xamanteni dinañ émerger aller de aller de l'avant et je pense que li ñu koy may moy li ma doon théoriser sank il faut ñu nangu aussi suñu rak yi ak suñu même parce que man je me dis que j'ai intégré le parti à 14 ans bientôt mon fils aura 14 ans qu'est-ce qui quest qui m'empêcherait aujourd'hui bu ko bien sûr mu dugg parti bu mu parce que man dañ ma mu dugg parti mu je suis mm. enfant de socialiste mm. mais dañ ma bàyyi ma dem parti bu mu donc comme dañ socialiste sama m'a samay famille socialiste bien vrai que mon père ne faisait pas de la politique ay socialiste la ñu mais bi ma nee man PDS la sentir dañ ma bàyyi ma dem vers PDS condition bi ñu ma tegaloon mooy naa jàngi bu ma ragal donc ma dem intégré aujourd'hui si mon fils taxaw ne ma dama bëgg dem intégré en tel parti dama koy bàyyi mu dem mais bala mu fay dem dina ko retourné wat leçon bi ma sam papa joxoon na dem gëstu ji parti bobu na xam idéologie parti bi na xam fonctionnement wu parti bi na xam mode de choix wu parti bi mais benen aspect bi aussi moy que ni il est man je pense qu'il est grand temps qu'aujourd'hui que les jeunes filles surtout s'assument et il faut qu'elles osent s'assumer dans les partis politiques je ne parlerai pas seulement des partis politiques. Euh, justement par rapport à ça les filles les jeunes filles ou les femmes sont dans les partis mais euh, généralement il n'y a une force de mobilisation. je euh, que <laughs> ah, je voulais pas en arriver là mais c'est ça dañuy a une force de mobilisation plus que dans les instances où elles prennent vraiment les décisions. xam nga parce que peut-être. Nous avons des capacités, capacité nous ñu moyens, a nous taxaw def mais handicap nous avons des moyens, nous avons dañuy jàpp que ni faire. la rek mm-hmm. dañ koy defal mais bu góor bi bu 10 000 francs cotisés. man jigéen bi 10 000 francs cotisés, bu subaa boo yëkkatee sa loxo dama effectivement tant que egguñu foofu duñ si mën mais aussi loolu li ñu koy may mooy ñu capacité à la base. Mm-hmm. capacité jeune ça ne veut pas forcément dire que c'est dans le cadre du parti. Mm-hmm. mais dans le cadre du développement communautaire. on a besoin de ces jeunes relais là. Euh, récemment, j'ai participé à un atelier qui parlait des MGF. Mhm. Et j'étais, sérieusement, j'étais tellement contente que, man, parce que j'ai vu des jeunes filles de moins de 15 ans, mhm. club de veille, C'est parce que nous avons faut exciser qu'elle. J'ai applaudi, sérieux, je devais faire 48 heures avec eux, j'ai fait presque une semaine avec eux. parce que j'étais sidéré. Modèle d'engagement, Bob, aujourd'hui, c'est de ça que nous avons besoin, dans nos partis politiques surtout. Parce que nous ben, avons pour il faut forcément passer par la politique. Mhm. Politique au Sénégal, mon parce que nous avons valoriser les compétences, les mhm. révérences ñëpp mën nañ ñëpp mën nañ dem dans les sphères de décision mais li ñu gën a sentir mooy révérence la ñuy gën a la ñuy gën la ñuy gën euh, primer que que que compétence donc il faut ñu nangu ñun génie yi man damay boole sama bopp ci génie hein parce que jeune là aussi donc hein. ñun bu ñu dañu bay nangu li may hum. bëgg que ni ñun ñuy joxanté loxo ba nga xamante ni sphère de décision yé Mhm. bon parler après bu sama candidat faloo après ñu mais il faut que sama candidat diallo ba pare ñu indi mais il est grand temps qu'aujourd'hui que les femmes acceptent de mhm. s'assumer il faut qu'on ose cela ce pas là il faut nous franchir ko te pour nous franchir ko suñu yaay yi nous suñu ay deuguer laay hein ñun suñu tank on a beau être formé on a beau être des leaders mais il faut que nous am fuñu ñu pour dem et suñu wéeru bobu non moy suñu ay yaay suñu ay papa suñu ay tonton donte dañ naan dans le monde politique amul yaay amul papa mais man gëwma lool man dama gëm que la réalité sociale est autre voilà la réalité sociale est là et barrière la té pour ñu pour ñu pour ñu mëna éradiquer fléau bi ñu sonal aujourd'hui moy la crise des valeurs il faut ñun ñu nangu ñun ñi nga xamanteni des mhm. fois euh, je ne parle pas de ma modeste personne mais dinañ ñu xawa jël touti en exemple il faut ñu nangu que ni papa mu ngi fi mhm. yaay fi grand frère mu grande sœur a ngi fi ñu leen di déglu pour suñu rak mën ñoo déglu mais bu déglu aussi conseil les conseils avisés yi ñu suñu parents yi doon jox suñu aînés yi doon jox il faut ñu répercuter ko nous ñom ñom ñu répercuter ainsi de suite, ensuite de suite ensuite donc chaîne de valeur boobu bu ko respecter moi je pense que tout ira bien et c'est pour c'est pour bientôt hein Sénégal day changer parce que mm. bo xolé actuellement ñi def politique ils moyens d'âge ils c'est des jeunes mhm. mais malheureusement ils ne siègent pas euh, dans les sphères de décision effectivement et ça c'est vraiment c'est vice de forme mhm. euh, mais ah. on en viendra peut-être à cette époque là justement par rapport à que euh, nga noir, wax par rapport à li si si mhm. parti moi je pense que au-delà des partis est-ce que vous avez ensemble au-delà des couleurs des partis est-ce que ensemble vous avez des euh, des projets ensemble yo ça va permettre ñi nga xamante ñoo di ndaw ñi ci différents partis ak jigen ñi ñu accéder ci instance de décision yoy non. bon je pense comme comme elle l'a dit hein, je pense que euh, au niveau au niveau au niveau au niveau national il y a des il y a des académies yu taxaw comme ni ko waxee mom mi ngi académie libérale bu Nauman ñoom ñooy première euh, promotion bi actuellement deuxième promotion bi mi ngi daw man ci la bok. donc pour vous dire que il y a question bobu non ñu ngi koy intégrer pour que vraiment moo vraiment les jeunes ñu xam exactement lan moy sen idéologie politique pour mën ko mën ko défendre maintenant li wax non c'est important ñun ay relais lañ wara nek buñ ko jëlé foofu ñun ñoko wara war à la base comme mom li wax jeune bu bëgg formation en leadership développement personnel et tout ça mom boko boko contacter mën na la mën na la ci jàppale au-delà au-delà des des des jeunesses politiques donc c'est important et que c'est un travail bon comme si euh, ça doit être euh, de façon perpétuelle que nous koy di à la base de wax ak jeunesse par rapport à idéologie pour nous pour une am formation bu pour que le plus lu ñuy def mu leer sinon gëm-gëm boobu non ak conviction boobu non mo dul amati ci ci politique parce que actuellement ñi mu a judd ñi mu ñu dugg ci politique li ñuy gis rek la ni moy politique mm-hmm. parce que légui politique idéologie gaay yi gisatuñ ko fu toy rek ñu tak opposition moom am na ñoo xam si léegi bokkatuñ seen seen seen vocable ñoom na na na na pouvoir di nguur rek et que loolu bu tànk mi ngi am rek idéologie day dee te jeunesse bi bu ñëwee aussi ci ñooñu la ñuy roy ñooñu la ñuy jàng pour mhm. pour mën a pour mën a def seen politique parce que léegi bu njëkk ba transhumance ci paaye rek nga ko doon dégg mhm. ay xale yu ndaw ay jeunes la ñuy dénk ay ay ay structure ci parti nga gis leen ëllëg ñu dem transhumé et loolu je pense que bu ñëk bu boo musaan def après do mëna a génn xool nit ñi. par euh, exemple c'est tout à fait euh, hmm? tout à fait banal. par exemple ay mod jañ Fada bi ñi yoré usiteel ak tan yoy do doo ñu xalat ñom ñu ñom ñu dem di transhumé ji parce que hmm? bobu dañu gëmon ci li nekkon hmm. mais tay so xëyee suba ñun la jeune euh, euh, grand parti wala jeune tel parti dem na APR affaire bi day banal ci yow. mais parce que lolu dafa am loo xam ci tay moñalé wuñ leen ko en tant que jeunesse politique. ñu xam li ñu yor. pour téye ko parce que idéologie la idéologie bi nag pour nga euh, dëggu ci foog nga gëm ko foog nga xam exactement gëstu ko xam ko pour mën a xam ci li nga ci ci li nga toog lan la maintenant loolu nag pour man mm, mag ñi ñoo ñoo ko war a yee ci xale yi donc comme ni ko Marie waxee sànq c'est n'est pas question de d'une alternance générationnelle mais ñun li ñuy woote mooy une solidarité générationnelle mag ñi jàngal ndaw ñi ndaw ñi appliquer li leen mag ñi jàngal mag ñi aussi nañ nekk dans l'encadrement may xalé yi ñu ñëw vers les instances de décision donc c'est ça la solidarité génération ñëw ñu rek ni mag ñi pousse leen ñun dañuy ñëw mais foog mag ñi encadrer ndaw ñi ba pare may leen ñu exercer pour que ñu encadrer leen donc loolu c' est c' est très important aussi ñu leeral ko mais nag mag ñooñu suñu bëggul a jàngal ndaw ñi aussi day xaw a doy waar parce que lim lay wax nii académie libérale bi ñuy bi ñuy nekk actuellement nii c' est pas le Sénégalais hein, ce sont les Allemands ñoo koy et pourquoi Sénégal ci boppam au niveau du ministère de l'Intérieur, Nous mi nga xam Ce géré parti partis. su parti yi des académies chaque année nous avons un jël corps sans jeunes, jeunes le libéralisme le socialisme et d'autres idéologies comme moi pour que nous ñu des ah jeunes idéologiques. ci ci comme que parti il léegi nous ndëgër laay là. parce que loolu aussi ay moyens de faire parce que euh, voilà ça nécessite des fonds donc c'est c'est très important Ce qui fait que nous nañ vraiment remobiliser les jeunes pour conscientiser leen pour ñu xam ci li ñu nekk espace bi ñu nekk espace politique bi du guerre du violence mais bataille idéologique la ba nga xam si tey kenn ku nekk da ngay jéem a valoriser li nga gëm. Euh, tey jii réseaux sociaux yi dafa nekk loo xamante ne dafay fësal système bi nga xamante ne wala euh, pratique yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci politique maanaam li nga koy waxee sànq euh, toujours doon débat wu idée. di daa mm-hmm. débat day doon ku nekk dem wëral sa morom loo xamante ni defoon na ko ñaaw na. nga mm-hmm. ñëw tegaat ko ci penc mi pour ñëpp di ko waxtaanee est-ce que fi ñuy jaar bay wane loolu noonu. est-ce que tamit parti yi comme que loolu du demander fonds bu war waruñu fa jaar ñoom tamit pour wane que ni ah idéologie kat am na ci politique base am na ci politique leneen ak leneen am na ci politique comme que jeunes yi fan la ñuy ñoom ñëpp ñu jàngalee leen ko foofu noonu. non parti yi ñu ngi ci ñu ngi ci euh, ñu ngi ciy jéem par exemple comme parti wu Marie Sow par exemple j'ai vu euh, Franck par exemple mi ngi jëm ci loolu des fois mu gis ko mu convoqué jeunes yi son permanence parti parti démocrate sénégalais indi benn. expert wala benn ancien wu parti bi mu jox leen des des leçons par rapport au libéralisme lool c'est important ñi ngi ci mais tey mbir mi dafa toll foo xam si dafa am na ñu rate lu bari te loolu pour ñu dabuwaat ko c'est un mouvement d'ensemble par exemple bu ko PDS kese di def wala man sama parti ànd saxal liggéey kese di ko def affaire du dem fenn il faut que parti yëpp même fay seen cahier de charge yi ñu def ko ci que parti bi dafa war a am benn école du parti boo nga xam si mooy former jeunes yi par rapport à leur sinon jeune bi bu amul lool bu engagé wo ci parti bi su gisee ni kii dafa nekk contradiction ak sama parti rek ay saaga ay saaga ay saaga ñoo ciy ñëw te man par exemple am naa ay xarit yoo xam ñi ngi bokk ci yeneen parti yi ñi ngi bokk ci nguur gi par exemple les jeunes yi nga xam si ñoom ñoo ŋànk les structures de paix ñu ci ëpp man ak ñoom ñoo doon tëddandoo lal université kooku du yàgg ba ma jàkkaarloog moom di teg ci kawam lu ñaaw parce que xam naa ni politique lañ séq à part politique leneen la donc loolu il faut que mu nekk un mouvement d'ensemble kenn ku nekk inculque ko say jeunes mais bu ko PDS kese defee waa jeune PDS yi kese ñooy tok yaru di wax waxu idéologie ñu leen wax ay saaga affaire du feeñ. il faut que ce soit un il faut que ça soit un mouvement d'ensemble parce que aussi ay jeunes lañ bu ñu ci réseaux sociaux yi nit bu waxé rek il faut que réaction réaction yi day am. mais su fekkoon ay débat d'idées la ñuy teg wax ci socialisme ni le socialisme kat baaxul leg leg motax baaxul un socialiste day ñëw répliquer avec des idées socialisme li mo baax parce que mo mën a réew mu fi ak fi ak fi donc biko socialiste yoron lii ak lii lañ doon def mais soko xamul do ko mën wax il faut que nag nga jàngi ko pour ñu mën lako ko mën xamal donc loolu c'est c'est c'est primordial et que loolu lu ñu réfléchir a réfléchiraat la et je pense que. Euh, nous avons fait ay assises nationales et assise politique, mais assises politiques yi fi ko pour monde du foofu ko exactement moi qui fonctionnement au parti politique yi le parti politique war a fonctionner. parti politique yi nañ comme si je pense que le parti bu deful présenter un bilan de formation par année ñu tas parce que ah. loolu moo war parti par essence peut-être conquête du pouvoir la mais formation bi dafa nekk lu war a am solo ci biir ci biir ci biir parti loolu mm-hmm. si loolu noonu. Mm-hmm. man li ma gëm. Mm-hmm. mooy que ni dañu war a dellu si à l'ancien système. les effectivement mhm. et ça ça va nous permettre de rationaliser la mhm. rationalisation des partis mhm. politiques gauche libéraux nañu and effectivement socialistes yi nañu ànd trotskistes yi nañu gauchistes yi nañu la ça va ñu def primaire effectivement mais tant que ñu ngi fi au Sénégal aujourd'hui on combien pas. 600 partis dans un pays comme le Sénégal mais c'est exagéré à la fin. Et tu vois que des partis tangana, yo xamantene duñu duñu mësa dem élection. Toujours dañuy langa. Jamais jamais jamais. Toujours dañuy langam. Légui nga gis leen nak ñom ñep ñu génn commencé. Polier ah. polier le débat quoi. Mercato Ah oui ah oui. Ah. <laughs> Tangana bi tangana rek ngay dégg ñuy wax nak en plus. Malheureusement malheureusement. Donc vous êtes euh, bien sûr d'accord avec l'idée selon laquelle parti bi nga xamantene amul école du parti wala jéemu la def benn formation pour dire ñi nga xamantene ñoy ndaw ñu am capacité intellectuelle à différencier le vrai du faux ñu teg leen ay dan si possible. xam nga man lima gëm moy parti bi. buñ koy créer dafa am charte bu ko créer mhm. mais charte bi ko créer daf ko jox obligation mu mhm. capacité ay militants effectivement pas franc jeune kese mhm. militants yi lañ la wax effectivement bon nee militant c'est le c'est le cadre général mais comme dans les partis te disent que pas dans les partis ça c'est c'est de manière générale on te dit que la jeunesse mom c'est la relève de demain c'est l'avenir un avenir nak def naa dañ koy préparer ñun suñu parti lañ la jeunesse faire de lance mais faire de lance il y a de de capacité est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas le projet de société de maître Abdoulaye Wade peut pas défendre mm-hmm. est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas le projet de société du président Karim Wade peut pas le défendre le défendre mm-hmm. il va se gourer toog si plateau on ba à la fin même les militants du parti ñoom ñoo koy attaquer le et là, pour mu il faut insister on ne demande pas au parti de faire les les sessions de formation une fois par semaine non mm-hmm. c'est pas possible Mhm. parce que nous jël Ndar jël Dakar jël jël Touba jël Kenen, bolé len un seul jour pour former mais aussi nga def de telle sorte que au moins dans l'année mhm. di nga am deux à quatre sessions de formation chez nous c'est chaque mois hein. mhm. chez nous c'est chaque mois un département passe un département passe un département passe et dernièrement on a même une Pikine fille <laughs> on a dit on se déplace pas mhm. c'est l'institut qui se déplace à Pikine effectivement j'ai vu ça c'est l'institut qui devait se déplacer à Pikine mhm. malheureusement on était contraint par le temps mhm. parce que a un système renouvellement yi ñu très prochainement on va recevoir l'institut libéral du Parti démocratique sénégalais ici dans le département de Pikine et c'est juste pour les jeunes après les jeunes on va migrer vers les femmes hein parce aussi les femmes, quoi qu'on puisse dire, ont besoin de capacitation. Mm -hmm. Ce n'est pas question de intellectuel que nous devons former. cadre politique de femmes mais cadre politique bi boo waxul jaar Abdoulaye Wade ba egsi Karim Wade beaucoup waxul Karim Wade fi mu nara a fait réew mi ak fi ko nar a yóbbu kooku boo beau dans un médium nous munul défendre projet boobu donc vous nous paree si même nos anciens aujourd'hui dañu dañu nostalgique ndeysaan ancien boo si plateau plateau. Hmm. nan la 74. mu la est-ce que li valable loon 74. réactivalisé quoi valable 2023 valable tout 2023 mais kooku amna noy waxe ak mom de doko ko bayiko hmm. bàyyi ko si parce que gem gemam bobu kat amoon na njëriñ ndax gëm-gëm boobu Abdoulaye Wade au palais. Hmm. nga bayiko ko si gëm-gëmam waxtaan ak mom mais actualiser données yi nekk si biir boppam. mais boy actualiser données yi nekk si biir bopam mag bobu non amna jeune bu mu andal bo capacité wul jeune bi ba jeune bi bu ñu toogee mën a waxtaan amna na waxtaaj amna mhm. dañuy tok diko di ko wax di ko taaj ku nek deg bu mag bi waxe ndaw bi tire ci leçon mais ndaw bi aussi meuna soti meuna doli xel mag bi ba nga xamanteni ni dina gën a mise à jour ay données dina gën mise à jour ay information pour ñu pour ñu dem vers un Sénégal meilleur et moi je pense que lolu il faut que les parties s'y mettent c'est pas question de je suis du Parti démocratique sénégalais ou je suis de tel du Parti socialiste ou je suis de Tahaou ou de Pastef euh, ex-Pastef pas de lolo, <laughs> mais <laughs> pas de ça mais nous comme Kenny, on est jeunes déjà on habite une localité on a un devoir envers ce département qui mhm. tarde à décoller encore une fois de plus bien sûr le département de Pikine tarde à décoller sans yëpp les cimetières, les Les les cimetières, les bi les cimetières, les am les cimetières, les tar mais qu'est-ce qui nous empêche de faire un bloc pour amener des experts en décentralisation dans la jeunesse. Mm-hmm. on a des jeunes qui ont été aujourd'hui ku si nekk dem nga jàngi sa xel na Mais domaine mais domaine été en train de di faire des débat

mais nit bu nekk ak ni ngay waxe ak mom et loolu fan la gën a ci franc jeune bi la gën a parce que pour nga heurter leen dafa yomb. Hmm. parce que li ñuy dund mom mo métti. xam nga jeune bi aujourd'hui jeune yi li ñuy concours moy amna master 2. Hmm. kii ne la amna naa deuxième master 2 kii ne la maa ngi dem doctorat. ñun suñu temps c'était tellement difficile que. Hmm. par 3 ans lañ doon defi ben ben attestation lañu dem wuti wala ben certificat. parce que c'était difficile aujourd'hui ils ont la potentialité ils ont la possibilité. de d'avoir ces diplômes là mais buñ ko amé pare lañu ñëwaat toogal seen kër marchand lañuy nek marchand ambulant vendeurs souvent donc à la fin que nous une xol et pour mu dañ pour nga mëna a lo xamanteni c'est des choses yo xamné daf leen di de l'avant mhm. il faut nga fekk leen monde mais leen fekk monde ba bu leen bu leen wax il faut qu'au Sénégal qu'on commence à écouter la jeunesse mhm. on parle à la jeunesse on parle tout le temps à la jeunesse non, vous, la jeunesse, vous demandez tout le temps tel poste, vous demandez tout le temps d'être euh, à être dans, dans, les sphères de décision. Mais est-ce que la jeune, vous n'avez sphère de décision, là, la mhm. est-ce que laaj jeunes jeune bi muy localité vous avez que parce que ces conseil structure de jeunes qui lay le plus souvent ba ñëw toog en a de yow wax est-ce que bi mais est-ce que buñ ko dañ mais ku ñu yabal dañ lay yabaaleel mhm. maanaam dañ lay jox ay ay mais mhm. doléance yooyu le plus souvent boo ñëwee duñ la may temps nga wax ka da ngay ñëw moom moo lay wax bëgg-bëggam et le plus souvent bëgg-bëggam yëpp fenn la nekk dinaa la may passe booy ñibbi <laughs> dinaa la mais dama am activité tel tel tel lieu mhm. mobiliser ma tel temps de car kaay nga defal ma animation mobilisation bi ñu doon wax voilà kaay nga defal ma kaay nga defal ma kaay nga defal ma animation Sénégal gii li fi nekk si jeune macha allah xarañ nañ compétence baa ressources mhm. humaines mais on l'état ne peut pas exploiter cela et man loolu dama gëm que manque de politique de jeunesse donc nous koy bis buñu amé politique de jeunesse bu valable et fiable mhm. cette jeunesse là di braver les mères, cette jeunesse là di dem Barça wala Barça dañuy tok ci biir kër dañuy Sénégal parce que quoi qu'on puisse dire sénégalais fu mu mënti am Sénégal gën na ñun Pikinois nga xamné on est fier de notre de vivre mhm. notre pikinité tranquillement effectivement si euh, si si walum euh, jël décision ak jeunes yi nga xamantene dañuy jël je leneen leneen leneen monsieur Fall. Mhm. Euh, lan lañ mën def pour motiver leen à ce que ñu rester non seulement dans ce pays mais que ñu nous engagé wu à vos côtés motiver leen carrément à ce que ñu engagé parce que nit tamit buy engagé wu ci dara il faut mu xam lan la siy gagné lan la ko yëf yi apporter. waaw loolu je pense que ni moom. Euh, c'est un problème boo nga xam si li ko mën a réglé euh, ñu def les assises de la jeunesse sénégalaise parce que c'est très important parce que jeunes yi leen di gën frustré des fois. le président Macky Sall day génn wax na def na quatre cent cinquante milliards ci jeunesse bi. Mhm. quatre cent cinquante milliards. Pikine fii ki yoroon DER day génn ni la dugal nañ fi cinq milliards. teew doo dox ba daje ak jeune boo xam si jot na ci xaalis boobu noonu en tant que jeune loolu daf lay. Ah, daf lay révolté de jël nga sa projet déposé ko fu nekk ñun la dugal nañ cinq milliards biir Pikine te yow amoo ci. maintenant yow tu vas te sentir léger da nga naan yow kon est-ce que bokk nga ci. jeunesse jeunesse bi est-ce que bokk nga ci population bi est-ce que yow cas spécial nga wala quelque chose comme ça tu te poses plein de questions te doo am ku la répondre maintenant le président day génn euh, wala le premier wala le ministre de l'intérieur traité la de terroriste wala ñu traité la de force occulte yow lay beddi bokkatoo ci jeunesse bi bokkatoo ci population tu te sens euh, léger tu te ah. sens stigmatisé donc loolu nag ce ko mën régler nous que des politiques qui sont si vraiment dañ parce que la question de l'emploi des jeunes doit être mhm. territorialisée. ce qui est valable à Bambay n'est pas valable à ah Pikine les besoins de la jeunesse de Diourbel ne sont pas les mêmes que les besoins de la jeunesse de Mbadakhoun. chaque région waxoon on créé dañuy créer pôle territorial je pense que politique je ne je sais pas pourquoi on teg ko ci mais que je veux régler surtout euh, euh, le problème de l'emploi des jeunes il faut que nous sachions exactement ce bu nous lan fait. Nous avons yi ñu def benn diagnostic ba pare mm. diagnostic boo si des exhaustif ba pare vraiment dem vers les solutions moom fekkee dañuy importer des solutions rek mm. ñëw indil ko jeunesse bi solution solutions non, du pour qui non nous du solution par rapport à la aux questions de l'emploi des jeunes il faut que nous teg des solutions nous nous ñun ñoo koy concevoir li mari li Marie doon wax sànq il faut que ñu déglu la jeunesse il faut une écoute active de la jeunesse pour que ñu xam lan mooy seen jafe-jafe mën ci indi euh, des saafara yoo xam si ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy proposer seen bopp mais fekkee dañuy importer ay solution rek indil leen ko euh, li ñu gis nii day gën a day gën a continuer rek parce que vraiment euh, liy xew ci géej gi actuellement c'est c'est catastrophique waxatuñu waxu géej gi ñu ngi wax waxu Nica Nicaragua xaw ma et foofu moom je pense que il faut que zone yooyu ay dealer ñoo fay nekk foofu moom bal lañu lay dóor si saa si nga seet c'est c'est c'est mooy c'est non foofu moo gën a dangereux parce que bu ñu demee ba sonn si affaire yi instant bi coono amagul xam naa mais bu demee bu ñu demee ba sonn ci affaire yi foofu drogue moo fa am ay cartel mën nañ la jàpp jaam dugal la seen cartel yooyu noonu bayloo la yàmbaa wala drogue doo xam donc loolu état bu am jeunesse bi bi ñu am ñun pour man change la mais état bi dafa jël jeunesse bi daf ko benn problème alors que jeunesse bi change la waroon nekk suñu dividende démographique la utilisé capte utiliser vraiment convenablement projet yi wax réel agriculture am des bras valides yu mëna bay chaîne lay nekk jeune Dakar man kuma ma ki ni ma demal bay sama dëkk mais mënuma bay mais amna jeune yo xam si ñi ngi fi ala ba lañ euh, dëkk ba lañ bay buñ def transformation mu chaîne les services les jeunes de Dakar yi nga xam si services. ngi fi donc c'est chaîne la chaîne ce ñoom ñëpp ciy gis seen Nous avons dina bay jaay su indi transformation créer emploi su transformer ba la commercialisation sur suñu réseaux sociaux yi ont au niveau international c'est très facile à régler le problème de l'emploi parce que y a suuf su doy y a et y des bras valides pour le faire pourquoi nous ñu bëgg vraiment dugg ci carcan product par exemple, le projet bu baax 29 milliards lañ wax PESA du ko gund 29 milliards yooyu soo ko doon wër et pourquoi les 450 milliards nous xool sax région ñu defal ko benn 5 000 jeunes 5 000 jeunes je pense que fu si nous bu ñu paree du ñoom kese ñoom ñooy liggéey parce que 5 000 jeunes nous ko déggee mooy mais 5 000 jeunes bu bayee ba jàppal 5000 jeunes mën nañ de transformation d'autres 5000 jeunes mën nañ commercialisation donc lu lu lu du mais amuñu volonté bi quoi. une chaîne qui est vraiment importante et qui règle plusieurs problèmes à la fois j'avoue et monsieur Fall j'avais une autre question par rapport à à votre parti et vous soutenez une candidature euh, féminine lan moo lan moo waral loolu noonu nga euh, soutenir euh, voilà la candidature féminine je pense que Marie Marie Marie dina ci je ah. parce que moom candidat ñëwagul. je pense que voilà te kandaam euh, euh, doom la suñu si suñu si suñu candidat wala wala rakk la si suñu candidat mm-hmm. donc la présidente Aïda Mbodj nag boo gisee ñu koy soutenir mm-hmm. c'est parce que yaay la te actuellement dëkk bi fi ñu tollu ak jaxasoo bi mu jaxasoo dañu soxla yaay parce que yaay moom moo mën jubale parce que dëkk bi actuellement dafa nekk ay pàcc-pàcc dañ ko dañ def

si code de la famille bi yu bari xex na ko ci donc lool nak je pense que buñ ko gisee mu ànd ak un programme bo nga xam si da koy indi tégal ko pour la population sénégalaise parce que bu ñëwé aussi lu mu nekk nekk jigen je sais que ni jigen ñi am wall trop ci gouvernance am mais lu jigen ñi am am wall aussi elle sera la présidente de tous les sénégalais motax dañu am programme bo nga xam si da ko def ci ay patch yo nga xam ci d'abord réforme institutionnelle da ci am ce côté économie aussi la transformation structurelle de l'économie bi Macky Sall doon réalité réalité le problème de l'emploi des jeunes aussi day xam si bu am solo par rapport au programme de donc lolu mo waral ñun suñu soutien ci la présidente ay war koy wax ci bu ko lay Elle bu ko campagne lay la campagne donc elle campagne yow bon ak Marie Sow mooy loolu Marie Sow moom. moom aussi yaayam la ñoo nekkandoo woon assemblée. mu nekk aussi ku ku mu fonk ku mooy wax ay waxam toujours vraiment moo defaat fii témoignage bi ay dem Mbodj suy wax ci Marie day wax ci moom lu rafet aussi donc loolu aussi. lu jar a témoin moom aussi fu mu ma gisee fu mu ma gisee day wax wax ju rafet. ci la présidente Aïda Mbodj donc c' est c' est très important donc man dama am sens Aïda Mbodj nekk sama yaay Marie Sow nekk suma sœur. donc loolu aussi c'est c'est important Marie bon peut-être yàlla def na ñu bokk plateau mais man lu muy dugg da koy yëg moom lu muy dugg dama koy yëg donc c'est c'est important moom moom moom yàlla moo ñu boole quoi macha allah c'est c'est vraiment une euh, belle solidarité euh, jot na de doo ko laaj Karim kañ lay ñëw ñu jox euh, <laughs> non puisqu'elle sait que dina ñëw et ah, que jàppaguñ dat donc ñun on va attendre beneen émission incha allah moom dina ñëw pour wax seen stratégie réellement <laughs> lan la incha allah est-ce que jotul tamit ñu jox jigéen ñi seen seen seen chance ah billaay dëgg la jot na mais dëgg la jigéen la j'aurais bien aimé aujourd'hui me jàppale candidature boobu hein. sama bàjjan la ah. Aïda mm-hmm. au-delà d'être une maman man sama bàjjan lenqe la. bañ naa a beaucoup, suma awsuturam bàjjan Aïda laa koy wax. Mm-hmm. parce que nag elle avait des relations particulières avec mon défunt père. donc man xamna naa xamna mais Badjan, mang lay nuyu au passage kay nga jàppale sa frère non mais mom xamna na que ni frère am yor rew mi mom xam na day am place bu am solo. parce que xamnañ limu meun xam nañ ni mu ko mënee te xam nañ li mu sañ aussi donc hmm. bàjjan un petit coucou le frère est en route donc en route waaw bu ñu paree si loolu déggoo sànq wax naa la ko si biiri wax hmm. Sénégal balaa ñuy mën a jàppale réellement jigéen tey j'aurais bien aimé ñun ñëpp ñu boole woon suñu loxo jàppale candidature féminine hmm. et dafay dafa dafa nekk lu jaadu en fait leen John Johnson Shirley fu mu nekkee président président mm-hmm. Mm-hmm. Sénégal war na ko mais on manque de solidarité nous les mm-hmm. femmes on manque de solidarité malheureusement aujourd'hui euh, euh, c'est pas, ça n'a pas commencé avec Aïda il y avait une autre, il y avait Marie Wanli qui avait commencé, il y avait, mm -hmm. mais d'un instant, do xam fan la len goor ñi di un rek ñu retirer waat seen candidature donc wala ñu naan le damay dem jàppale diw jàppale bobu nak moi je pense que il faut que ñu def ay assises de la femme aussi hein hum, hum, hum, on a un acquis déjà c'est-à-dire la parité même si on devoir on doit revoir parité bobu non aujourd'hui il faut qu'on revoie la parité parce que amna problème institution yi ñu am dans les institutions lu bari parité boobu moo ñu koy il faut ñu revoir parité bobu

dóorante ay kurpañ wax mais du tee dañuy àndaat parce qu'on a un combat commun et ça concerne toutes les femmes sénégalaises mais nag femmes yi aussi ñu leen ma leen di lancer waale foofu benn message mhm. bu ngeen amee parité jàpp ni parité bi mhm. du pour yéen kese xale yu jigéen yi si lañ bokk les jeunes filles et xale ñuy jël di leen léser di leen si jeunes filles si parité bi lañ bokk parce que jigéen lañu quand on parle de parité on parle de la femme aujourd'hui une jeune de moins de 35 ans peut être une femme Oui, hein. oui. bien sûr peut être une femme au lieu de nous jeune fille jeune fille man loolu mm-hmm. il faut qu'on commence déjà à arrêter de confiner les femmes et les mm-hmm. jeunes filles dans les mouvements de femmes et de jeunesse féminine mm-hmm. mouvement de jeunesse féminine et de femmes il faut qu'on arrête ça bien sûr Bon, les boole lépp les parti la secrétaire général boudé ni man bu góor bi man jigéen bi ma ne nii eh. nit la may nit on est ndeysaan l'islam sax nee na ñoo ñoo ñoo juddoo ñoo yemandoo droit may ñu ko hmm. kon kay pourquoi tey nga war ma jël defal ma mouvement de femme pourquoi du ñu def mouvement des hommes wala <laughs> mais amu fi mais pourquoi ñun ñu war a nangu éternellement ñu ñuy confiner ci mouvement de jeunesse féminine et mouvement de femme lenn rek lañ ñu doyee jeune fille bi kaay nekk hôtesse femme bi kaay tàcc il faut que ça cesse

Atameng personnalité politique sénégalaise, membre du Parti socialiste, est né le 18 avril 1957 à Rufisque au Sénégal très jeune, elle s'engage dans la politique intégrant l'école du Parti socialiste à l'époque, cours incontournable de l'intégration à la politique sénégalaise. Des ministères aux communes, elle a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement sénégalais, notamment le ministère de la Pêche, ministère de l'Élevage, ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Elle est également mairesse de la commune de Louga de 2009 à 2014. Leader incontesté dans la politique sénégalaise, elle a fait preuve d'une grande détermination dans la promotion des droits des femmes et l'égalité des sexes au Sénégal. L'occupation de ces postes influents lui a permis de jouer un rôle clé dans l'élaboration et la mise en place des politiques favorables aux femmes encore aujourd'hui. Elle est une voix active pour le plaidoyer en faveur des droits des femmes travaillant à sensibiliser et à mobiliser les femmes sénégalaises pour qu'elles participent davantage à la vie politique. En 2019, elle est sacrée à la tête du Haut Conseiller des collectivités territoriales du Sénégal. Surnommée la gardienne du temple socialiste, l'originaire de la région de Louga est à ce jour vice-présidente de l'international socialiste depuis sa réélection à l'unanimité en novembre 2022. donc voilà vous l'avez euh, regardé un riche portrait de Sohna Aminata Mbengue Ndiaye mi elle a été toujours euh, dans le parti socialiste Je me li nga que ne droit wu jigéen ñi su depuis bi mu nekkee maire ba ni mu poste ministériel yu bëri yi mu occupé mu portrait bu riche vraiment ma commencé faire honneur aux hommes qu'est-ce que vous en euh, pensez Oui, ouais, je pense que day rejoindre Lindon ñu doon que rek la place de la femme dans la société et moi, je pense que mën nañ ko boole ci symbole yi nga xam si ñoom ñooy symboliser l'engagement féminin et je pense que Marie mi ngi koy wax sànq naan euh, surtout euh, euh, leur leur fidélité fidélité de la femme je pense que depuis bi mu fi nekkee ba léegi musuñu dégg ñu ni Aminata Mbengue Ndiaye jóge na PS dem beneen parti et ça c'est très important et xeex bi nga xam si aussi ñoom ñu ngi ko doon xeex muy Aminata Mbengue Ndiaye muy vraiment ñoom ñoom ñoom l'ensemble de ces figures là ay y a Diop euh, euh, PDS ay Aïda je pense que xex bobu non mo aboutir ba tay mom mu nek président d'institution au Sénégal je pense que Lolo, euh, avec le président Abdoulaye Wade bim commencé ko fi commencé indi premier ministre ba léegi ñoom ñi ngi gravité des échelons te que Aminata Mbengue Ndiaye ku ko dégg rek da nga koy collé euh, avec le parti le parti socialiste mu nekk femme femme femme femme de valeur aussi man bi ma ko xamee ba léegi dégguma dans la chaîne politique ñu ni Aminata Mbengue jaay moo attaqué telle telle personne et loolu c'est important pour ni image coow li muy bëri bëri bëri bëri doo ko dégg ci yenn yi et que loolu aussi ñun en tant que des jeunes politiques ñu war a jàng ci moom lañ war a par rapport d'abord à sa conscience par rapport aussi avec sa tenue nan lay nan lay nan ak ses adversaires politiques lolu aussi c'est c'est important donc diko sargal diko gudd fan ak gu euh, c'est vraiment important mu un symbole de grandeur d'une vraie euh, d'une vraie euh, socialiste tay lan mo nek sa impression par rapport ak portrait bi dama am sentiment de satisfaction et de fierté aujourd'hui mo mm-hmm. xol portrait bi parce que nak elle fait partie des femmes qui nous ont inspirées mm-hmm. très sincèrement et eh, wax naa aussi ci début émission bi jigen foko tek ngoram mhm. dignité, engagement mais loyauté. Mhm. elle a été loyale ba tay ji may wax yow elle reste loyale bagn nako ba boko ko mhm. dernièrement amna ciow lu fi jogone le parti doit avoir un candidat ne doit pas avoir un candidat moy len damay conformer aussi volonté wu feu Ousmane Tanor temps. donc mu nek nit yo xamanteni ni ni hormis toute considération politique ñun ndaw ni waruñu jéggaani dara suñuy kay ñu ngi fi. Mhm. on a des modèles femmes linguère yaa ngi fi. Mhm. man j'adore les appeler les linguères parce que ay linguère lañu nak quoi qu'on puisse dire. parti bo dem tay ji mën nañ la citer mën nañ la citer référence de Caroline Faye à maintenant mhm. amul combat buñu deful Marème lii donc ñoom ñep ñu ngi fi. ñu ngi ñu ngi fi donc ñun dama né li ñuy wax rek surtout nak ñun jeune fille dom ju jigen warta ta jàngaan ni ndeyam mooy royukaayam. suñuy yaay def nañ seeni preuve tay ji ñun la ñuy gunge li ñuy wax ñom bo leen ko wax sa dañ la ko dañ naan la on n'a plus rien lu ñuy wut ci scène politique bi on a et c'est vrai elles n'ont plus rien à prouver mais dom ñay ñay buy xal mbabal dom yeta donc comme ñun la ñuy xalal aujourd'hui on a le devoir on a le devoir de ñun ñu inspirer aussi femme yi une dame comme Aminata mbeng Ndiaye aline Badara Fall wax na la ko léegi mm-hmm. mosoo ko dégg ci détail de mm-hmm. mosoo dégg nee na la mu waxal diw hmm doko dégg au contraire mu top l'union partem, thème parteem lu thème tang tang tang mu si par thème mm-hmm. et pourtant mënoon nañ ne jigéen la du secrétaire général et les actuellement les secrétaire général du parti même si c'est pas intérim ñoom ñu koy wax mm. mais intérim boobu noonu war na leen ni mën na mm. intérim 3 ans voire 4 ans defe naa ni mat nga liñ la doon doyee donc jarul ñuy jàngaani on a nos références ici et commencé dans le ko limal boo jógee Caroline Faye da ngay wàcc si ñoom ñoy génération intermédiaire bi ci top ñun peut-être dañuy ñëw quatrième ou cinquième génération mm-hmm. mais ñun tamit war nañ def de sorte que aujourd'hui bu subaa ñu ñuy citer en exemple comme la maman Aminata Mbengue Ndiaye parce qu'on a eu feu Awa Diop ñëpp gisoon ko aussi mu doon def liguey bu mm-hmm. am solo et gis nga biñu ñu am la parité Aminata Mbengue Ndiaye ay dem ay dem Mbodj mm-hmm. awo Diop parti politique yëpp femme yi dañoo booloo ba xam nga bu ñu demee bay jël tey euh, gauchistes yi ñëw di rejoindre combat ba moo lay wan que ni c'est un combat noble donc jigéen ñi bu ñu booloo solidarité bi ñu cultiver ko defe na lu ñu yootu daañ ko jot et maman ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di le féliciter encore une fois de plus dila la wax yàlla nañu yàlla la yàlla bàyyi suñu kanam nga continuer di def suñu fierté aussi mais ñu continuer de inspirer aussi aussi yow si leçon yi ñuy wan te nak lo xamante ne da ngay nekk diko wax ak ñun mais da ngay jëf ñun ñuy gis donc peu que nak comme jëf nak ngay def ñun top lañ am droit donc ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér aussi. Amin, Amin, mu nekk euh, témoignage yoo xamante ne yu rafet la euh, ñëpp war ci mën roy également même dans la vie de tous les jours essayer nga mën a nekk toujours exemple bo xamante ne dañ lay cité ci lépp def donc c'était ça la vie et la vie des jeunes ça su nekk nii lay ay leen intéressé di ci waxtaan ak di participer su plateforme digitale def leen seen réaction seen commentaires. on prendra tout en compte incha merci beaucoup vraiment madame merci si teewlu bi ngeen euh, si ñëw bi ngeen ñëw jot amul et on le sait bien. Ah, c'est vraiment un plaisir partagé mm-hmm. surtout ma aussi plateau boo xamante ni c'est une jeune fille qui la qui anime l'émission mm-hmm. mais c'est une jeune fille aussi qui est la technicienne et qui fait tout donc madame Fourtou <laughs> Fatou Warkha donc ma dit ñu ngi leen di nuyu nous wax ne ñun la xaar mm-hmm. surtout yéen suñuy rakk yéen lii la ñuy xaar et je pense que am nga modèle yow jarul ngay jéggaani déjà fi ngay liggéeyee am nga fi modèle bo xamné ne bu ngeen ko topé kenen top kenen kenen top kenen à la fin jeune fille dinañ am li ñu bëgg dinañ arrivé montrer son engagement mais dinañ arriver aussi à nous dans le dans le dans le dans le système comme nous le donc nous, sommes leen di Santé di sommes gërëm tout le département de Pikine et je fais un coucou au passage à mon parti la fédération de Dagourane et le département de Pikine encore une fois je remercier mon frère Alun Badara Fall di wax ni bul bàyyi sa mag parce que comme nous jëm des fois beaucoup bi dina mais bul pas sa je continuer le coaching parce que je suis des donc merci mm. beaucoup et mes encouragements pour combat noble yi nga nekk porter par rapport à la jeunesse de la si ñaanal ndam fépp fo mën ci nekk donte ñu bor politique bu ñu man dama gëm que ni lu ñu boole moo ëpp lu ñuy tàqale. un on a le département de Pikine en commun. deux on est de la même génération. Mm-hmm. mais trois aussi meun nañu waxanté sans gêne. effectivement may nga ma ko. te mm-hmm. nangul na la ko mais yow aussi nangul nga ma loo ni man gëm na ni bu doon keneen dokko nangul donc ma ngi la ci sant di la gëreum di ñaanal ñëpp. Machallah, euh, merci beaucoup. Euh, Monsieur Fall, merci, beaucoup. vraiment, merci beaucoup mhm. pour le déplacement. Mhm. Et euh, di leen sant bu baax di leen gërëm. duñ fi waxante am na mhm. solo. merci beaucoup tout d'abord, moi je may jeexal rek le remercier aussi. di kontaan ci jàkkaarloo ak ak Marie Sow ci plateau bi comme nous mu ko waxee rek moom euh, c' est une sœur boo nga si vraiment pour ñu bu ñu naw et au niveau au niveau du département de Pikine comme nous ni mu ko moom euh, dafa bokk ci ci ci ñoo xam si ñun principalement dañuy inspiré parce que ñoo bokkoon parti ñu gis ko aussi muy xeex pour Pikine quoi pas pour sa personne mais pour Pikine et loolu c'est très important et loolu suñ ko jàppee naw ko ne jàpp ni loolu moo tax ñu gën koo gën koo jàpp fu mu tegoon tànkam aussi bu mu ko bàyyi même bu fekkee ñun nekkatuñ sax PDS mais lépp loo nga xam si PDS mi ngi koy joxe aussi na dëggal boppam parce que kenn gënu ko fa am mérité parce que bi muy bi ñu jàppee Karim Wade tey li waa Sonko def nii

félicité encore warxa mhm. parce que je ci kër mhm. man euh, TV parce que nous l'avons vu ramper. nous l'avons vu ramper di tek par ben. muy metti muy des fois ñu xaw ko des fois ñu xaw affaire mu mhm. et koy wax chaque jour euh, affaire yi dina parce que mom aussi expertise ak des fois nag li nekk ci bopp yëpp léegi bëgg a génneendoo te loolu day xaw a jafe tempo tempo rek dina dina dina ñëw incha allah donc am na reconnaissance au niveau au niveau national tey foo dem wax war xa ak ñun ci li ñuy liggéey dañuy nekk ci yenn atelier yooyu mais foo wax warxa. Euh, en parlant d'atelier elle doit un rapport hein. ah bon voilà donc elle est elle reconnue au niveau national et au niveau. Euh, de la sous-région aussi ñi koy commencé xam macha allah di ko wax que ni na gën a jàpp gën a dëgër lépp lu mu mën aussi ñu def ko di woo ñoom Marie aussi jaru sax maa di woo pour ñu gën ko soutenir aussi surtout par rapport aux organisations féministes comme ni ko jeunes yi amee féministes yi aussi leur organisation yi des fois nga gis ay donc il faudra que ngeen def bouclier pourquoi pas taxawal pour Pikine benn affaire aussi pour loolu je pense que c'est important di la féliciter yow aussi di la encourager et émission bi aussi am na solo trop par rapport au questions